alors coach tu l'as nekk. sant Yalla bu wér. yaa ngi la ziar encore une fois la ziar euh, toute la salle classico fitness club vraiment de remercier tous les éléments et la population thiessoise ok merci. ok coach ginnaaw bu ñu la nuyoo nga dal ñu de fii salle. D'ailleurs, je ne salle bi d'ailleurs man xaw ma salle bi nu tudd seen salle bi nu tudd ma salle avant de me présenter coach bi yi fi avec euh, ak personnel bi si ok c'est euh, la salle classique classico fitness club voilà ici c'est mon beau ñëwee macha coach yaa ngi fii coach Aziz coach Younous et coach Cheikh di def liggéey bo xamanteni vraiment c'est extraordinaire di len si remercier encore une fois vraiment gars yi fii yep avec tous les éléments mën nañ confirmer ñu joxe confirmation encore une fois si les mains nekk ni diko avouer on est d'accord ok. alors coach té bo mo waxé coach Aziz fi kan mo fi coach Aziz coach Aziz moy chef bi wala coach Aziz moom mooy adjoint bi wala coach Aziz moy kan kan moy coach Aziz. non fii manam amul amul coach bu mag amul coach bu ndaw quoi on a on a on a mis la tête sur sur les épaules ñëpp tolo hein. amul amul ki amul ki mo sout non non non non mais vraiment lolu affaire la bo xamanteni ni humble la simplicité la aussi ñu si remercier toutes les coachs fi amul haut amul bas amul ki ñun ñun ñëpp nous sommes maanaam nous sommes pareils quoi.

nan lañ koy défé c'est-à-dire bu ci nek lan moy njëriñam ci yaramu nit ki. voilà loolu dañ ci sawara a ñëwaat encore une fois par rapport à euh, step coré biñ doon def c'est il y avait un peu de cardio voilà mais bo xol gaay and nañu nañoo volonté action et courage ça donne en quelque sorte la détermination on est d'accord vraiment on a commencé par les pas basiques puis les pas intermédiaires après moi former les pas avancés. lol moy tax xalé bi bu duggé salle bi sax dina xam li ngay def dina ci mëna and ak yow encore une fois mais bu fekkee da nga ñëw andi ay pas intermédiaire bo amé client bo xamanteni comme père Babacar la mu ñëw ni don ko xamanteni ni wala ci si salle bi do xam yenn pas intermédiaire moo tax ñun li def xalé sax bu ñëw bu duggé salle bi day and ak ñun ci li ñuy def quoi defe na ni bi nga assister séance bi gis nga loolu ok no gis na ko parce que pas yi ma gis fi musuma ko gis donc ah cœur alors donc ça sa xolal du waaye kenn du Non, xam. Hein? mais père. père non père ma nga Je man xam pas. ma non hein? père vous bu nekkee koñ chère. dem ah, mais fille, Ma gis vu, la père. Ma chère. kaay <laughs> père. dis <laughs> ma wax ma Ma chère. non Ma wa ngi vraiment di trop qui, qui euh, vraiment comme c'est vrai que ñoo ñoo mais affaire la quoi aussi quoi. Mm-hmm. ni sport kon sport ba nga ba rek. Mm-hmm. quoi lañ aussi. franchement. ok euh, père forme ah, ah, c'était pas pour vous avancer mais bon sama sama sama point de vue là père moy nek ci kanam père moy def ki moy def mouvement yi il bouge de gauche à droite xam nga donc ça veut dire que père bugul màgget dee da gaw té te li ñuy lekk bariwul père xamna limay wax hein <laughs> waxa rek. mais c'est dommage que màgget mënul ñàkk quoi màgget mënul ñak ci ñep xam nga mais li ci am solo moy nga magat ak wirgu yaram xam nga té loolu aussi la ñuy ñaan ñep diko ko ñep inshallah c'est vrai que c'est volonté la ak yàgg def parce que xëy mo tax na ci kanam té aussi bëgguma tricher quoi man du ma triste ci dans la vie du ma def dama ci dem ba jeex mara tax dama préféré nek ci kanam donc luma laaj ma def ko avec tous les moyens xam nga donc euh, lolou moy sama point de vue quoi mara tout temps damay dem ci kanam macha quoi. juste juste pour xam. ba nga fi dalé ñew ak légui est-ce que yag na est-ce que tamit ba nga commencé def gym bi ak coach yi nek fii nii parce que nee fi ya différents coach mhm. te coach bu nek ak séance bi ngay diriger te ñom ñep ñoy ñoo ñoom ñoo yem ah yow.

man moma gëna neex motax tout le temps ma fi ñew waaw coach yépp mom machallah surtout coach Aziz. waaw mom lañ gëna a reconnaître ñun ñi ñun ñun xale yi ñun ñi di soga ñew quoi. donc mi ngi tek ci yoon ñi ngi nuyu tamit ñi ñëpp. waa xaritu xalé yi waa comme limay wax rek déjà fi mom dafa machallah mom moom ñëpp dañ lay jappé ni sa bop lolo ma gëna xam nga. Mhm. motivé may ñew fi quoi en plus. euh li may yëg daal neex na ma. Mhm. dama daan <laughs> xam nga dama ngandoon rek. waaw moom moo ma def nii tey ma mel. Ah, oh eh loolu mérité na tàccu de waaw waaw c'est extra waaw c'est extra <laughs> kenn du moom kenn du yàlla kenn du moom dama koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram saal bi lim ci bëgg ci àddunaam yàlla na ko ko yàlla def ak yeneen coach yi yëpp ñu dem ba ci kaw a kaw a kaw may seetaan télé naan xala sama coach voilà bëgg la <laughs> merci à toi merci à ba dañuy jël benn coach rek kooku cerveau la man maa ko cerveau wu bi coach nuy ay ziar bu baax na si. ci loo nekk sant yàlla bu baax. yaa ngi bu en deux secondes rek yow it nga euh, présenté wu ah nga wax ma parce que gis naa fi mouvement yoo xamante yaa ko doon def à dire surtout bi ñu terminer yaa ngi doon def ay gestes mouvement yo xamantene étirement la mhm. c'est relaxant yaa ñu doon wax ñu souffler yaa ñu doon wax ñu def ni ñu def na qu'on bouge de gauche à droite alors lool bo mu ko expliquer en deux secondes rek lan nga may wax waaw ah, asalaamaaleykum c'est euh, Younous Diallo mo gëna yomb <laughs> euh, coach Aziz a ngi coach Cheikh nga ni uh-huh. donc c'est Younous Diallo euh donc mouvement yi mo doon def sànq uh-huh. après bo après activité bi ngay def comme dañu terminer ak ben cardio boo xam te dafa xaw intense tuuti donc foog nga def benn mouvement de relax donc nga inspirer bu baax expirer pour que li nekk ci biir bi xaw a génn tuuti maintenant yeneen mouvement yi ñu doon def euh, avant avant ñu def étirement day day def euh, day travailler les abdos les abdos latérales mhm. ensuite les grands trois donc yooyu noonu mën nga ko def ci kër ga comme mën nga ko def ici ci salle yi euh, maintenant yeneen yeneen mouvement yi ñu doon def pour étirement beeg yooyu noonu parce que comme dañoo travailler bas du corps bi mm-hmm. en même temps haut du corps bi da ngay da ngay étirer euh, tànk yi soo paree nga étirer loxo donc mouvement yooyu laa doon laa doon wanaale en même temps. ok mm-hmm. ben coach merci. merci ben euh, tey wax nañu lu bari parce que nee na cardio kii di cardio di cœur euh, xool mooy nit. Mm-hmm. xol bu mënul résister amna yo xam do ko def man sportif la peut-être mëna wax ni mëna comprendre lool li ngay wax hein ah. ba. Euh, mën naa wax ni cardio bi ak cardio yi ma doon gis bokkul mooy wane ni kon fitness fitness bari na façon sport dafa yaatu discipline yi bari nañu mais bokkuñu logique yow cardio bi ngay jàngale bokkut ak cardio bi keneen di jàngale kon donc ça veut dire que euh, expérience bi bari na euh, xam-xam bi bari na il suffit juste nga creuser te qui creuse trouve. kuy yàgg gas. <laughs> ku yàgg ci teen gis baag. mi ngi noonu kon tey for naa for naa ak yéen ndax gis naa lu ma musul gis ah kon donc mot de la fin lu ñuy wax. acca non moom laa koy jox mot de la fin bi moom laa koy jox. classico. ca kaw ca kanam euh, encore une fois. classico